ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك
صدق الله العظيم وبلغ رسول المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن وجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نصينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعلنا حجة يا رب العالمين suñu waxtaan tey daanaka ñu ngi ko bëgg a def ci leeral ci mbiru guddi leelatul qadr ñu xam ne alqadr yi maanaam saar la ci biir saar yi nekk ci alquran ci wàccee bi ko yàlla wàccee mu ngi nekk vingt cinquième position wàcc fi nga xam ne mooy màkk comme niñ ko waxee woon ci yenn tafsir ñu doon def rek mooy bismillahi rahmaani rahim yi mooy wane commencement saar yi saari muy wàccee ba muy jeex bisimilahi rahmaani rahim di wane ne bee jeex na bii tàmbali na ci noonu muy wàccee suratul qadri mooy vingt cinquième position mooy vingt cinquième position wàcc fi nga xam ne moom mooy màkka baatu alqadr nag daanaka mun naa ne yàlla moom moo ñu ko firil ci alquran ci aaya bi muy wax naan maa qadrullahi xaq qadrihi inna allaha la qawiyun aziz ci suratul hajj joxuñu yàlla dëggantaan gëdd biñ ko war a jox wala maanaam joxuñu yàlla dëggantaan dayo biñ ko war a jox ci tubaab moom la ñuy wax ci valeur bi ñu war a jox yàlla kon al qadr mën nañ ko firee dayo laylatul qadri nekk guddi bi nga xam ne mooy guddi dayo yi maanaam guddi borom valeur yi kon mën nañ ko déggee fi nga xam ne mooy foofu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ci saar bi inna anzalnaahu fi laylatil qadr balaa dara dafa am saar boo xam ne moom la ñuy wax surtout duxaan surtout duxaan nag yàlla tàmbalee ko ci xaamim wal kitaab bi mubiin yàlla wàtti li nga xam ne mooy téere bi nga xam ne mooy téere bu leer bi di alxuraan la ci jublu nga xam ne mooy yaayu téere yi yàlla wàccee ko comme ni mu ko waxee ci aaya bi si topp inna anzalnaahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin yàlla ne wàccee naa li nga xamante ne moom mooy alxuraan ci guddi bi nga xam ne mooy guddi bu barke ndax yàlla moom mooy barkeel yàlla mooy barkeel barke ci yàlla lay jóge moo tax mu ne moom yàlla wàccee na li nga xam ne mooy alxuraan ci guddi boobu nga xam ne mooy guddi bu barkeel boobu yàlla di wax ba léegi ci li nga xam ne moom mooy leeral saar bi ba léegi suutul qadri inna anzalnaahu fi laylatil qadr mu ne wama adraaka ma laylatul qadr wama adraaka kan moo lay wax laylatul qadr guddi boobu nga xam ne mooy guddi laylatul qadr nga xam ne kon yàlla moom moo wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam guddi boobu su ko waxul woon du ko xam kon yàlla moo ko wax ñu siy profité di leeral muy guddi goo xam ne moom moo gën ci guddi yi guddi goo xam ne bi àdduna sosoo ba léegi guddi laylatul xadri mooy guddi bi gën ci guddi yi muy ñëw di ñëwaat at bu nekk benn yoon muy ñëw at bu nekk benn yoon bu ñu nee guddi bu gën nag mooy guddi bi nga xamante ne mooy guddi bi barke comme ni ma ko waxee ci aaya bi bu ñu nee guddi bi barke nag mooy guddi boo xamante ne nit ki lu mu ciy jaamu yàlla buñ ko koy fay di ko ful du bokk ak yeneen jaamu ci yeneen i guddi noonu lañ koy déggee yàlla bu ne yonent saa salaam ma adraaka ma laylatul qadr ma ne kan moo lay wax guddi laylatul qadr mooy lan wala mooy ban guddi mu ñëwaat ci beneen aaya bi stop ne laylatul qadri xayrum min alfi shahr maanaam laylatul qadri moom moo gën guddeem moom moo gën junniy weer mil weer benn guddi laylatul xadri boobu nit ki jaamu ci yàlla moo gën junniy weer mu ci jaamu yàlla kon li ñuy leeral foofu moom mooy jaamu bi ciy nit ki di jaamu li ci jut dafay nekk li nga xam ne mooy ay farataam bu njëkk waaye tam baax na ñu xam ci islaam guddi fan lay tàmbali ak fan lay jeexe ndax guddi gi moom guddi tàmbali dépp jant bi soo rek timis guddi tàmbali na ba keroog suba di jot maanaam julli suba bi ñuy julli foofu lay guddi gi tàmbale kon li ciy farata ci guddi googu mooy julli bi nit ki di julli timis ak julli bi nit ki di julli gée loolu moo ciy farata loolu moo ciy farata julli bi muy julli timis ak julli bi muy julli gée nga julli julli timis ci farata muy farata ci guddi laylatul xadri daanaka day nekk julli boo xam ne moo gën junniy weer nit ki di ko julli timis moo gën bu dee gée bi tam la même chose léegi nag ay nawaafil yi nga ciy def yooyu tamit dafay nekk ay naafila yoo xam ne ñoom ñooy gën junniy weer te bu ñu nee junniy weer nag mooy quatre-vingt-trois ans ak quatre mois loolu mooy mille weer quatre-vingt-trois ans ak quatre mois nit ki di ci jaamu yàlla nga jaamu yàlla benn guddi googu di guddi laylatul xadri moom moo gën quatre-vingt-trois ans ak quatre mois kon yàlla xamal nañu ne guddi googu moom moo gën junniy weer yàlla ba léegi mu ne tanazzalu malaaikatu wa ruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amr maanaam guddi googu noonu malaaka yi dañuy wàcc ànd ak ruux te buñ nee ruux moom mooy jibril tanazzalu malaaikatu wa ruuxu fiha bi izni rabbihim ci seen ndigalu borom la ñuy wàcc min kulli amr si mbir yépp moo tax ba léegi dañuy delluwaat ci li nga xam ne mooy surtout duxaan yàlla mu ngi leeral foofu tamit aaya yi ginnaaw bi mu ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka inna kunna munzirin mu ngi ñuy leeral ba léegi naan ñu fiiha yufraxu kullu amrin xakim amran min indina inna kunna mursilin yàlla mu ne durant ci li nga xam ne mooy guddi googu di guddi leeratul xadr yàlla ci lay wàccee ndogal yépp bu ñu nee ndogal nag mooy li war a xew ci diggante guddi leeratul xadr yi boobu ba beneen leeratul xadr yi ñëwaat mooy at boobu ñi ci war a ñi ci war a dund ñi ci war a dee jafe-jafe yi am ci àdduna bi moo xam ay guerre lay doon moo xam taw bi war a wàcc kulli amr maanaam mbir yépp ci guddi googu la koy yàlla di décréter ci at bi kañ lay kii moo war a faatu kii moo war a dund ba fekkee waat beneen guddi laylatul xadri bi kii moo ci am liggéey kii moo ciy ñàkk liggéey kii moo ci nangam kii moo ci nangam maanaam mbir yëpp ba mu des ki war a dugg àjjana ak ki war a dugg safara loolu moom ñëwagul moo tax du bokk ci li ñuy décréter guddi boobu kon guddi la boo xam ne mbir yëpp yàlla ci la koy wàccee mu nekk nag ay mbir yoo xamante ne comme ni ma ko waxee amran min indina ay mbir la yoo xamante ne ay ndogal yoo xam ne yu jógee fa yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ay mbir la yoo xamante ne tam comme ni mu ko waxee fiiha yufraxu kullu amrin xakim ay ndogal la yoo xam ne yu xereñ yu ànd ak sagesse yoo xam ne daanaka fi mu jóge mooy ki nga xamante ne mooy alxakim di ko xereñ moom borom bi subhaanahu wa taala jàllale ko tamit ci ay malaaka ñu di ko wàccee ci li nga xam ne mooy àdduna bi waaleykum salaam wa rahmatullah kon lii lenn la si lu ñu mën a tënk ci tanazzalu malaaikatu wa ruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amr xam naa dañ koy pause foofu incha allah bu julli ba pare après ñu yeggale ko alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi nekkoon ci tanazzalu malaaikatu wa ruuxu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xatta matlail fajar xam naa foofu la ñuy dugg salaamun hiya xatta matlail fajar maanaam guddi googu guddi jàmm lay nekk ne ko guddi jàmm lay nekk ba fajar jot maanaam day nekk guddi goo xam ne guddi gu dal lay nekk boo ci bàyyee xel guddi gi day nekk guddi goo xam ne du tàng tàngaay buy sonal ay nit comme tàng na ba nga yëg ne day ta- tàng na jër tey du sedd aussi tamit ba nekk sedd buy loraate déedéet dafay nekk si digg bi lay nekk day nekk guddi gu neex guddi gu dal doo dégg bruit bu bari leeraayu malaaka yi daanaka ak seen wàcc boo xoolee asamaan si pour nga gis ci biddéew du yomb waaye li nga xam ne mooy lendemain leelatul xadar jant bi dafay yéex a xëy te daanaka buy xëy dafay mel ne lu niis danga ko bët da koy ñemee xool comme ni ngay xoolee weer bi weer asaar la yoo xam ne yoon saa salaam joxe na ko ci li nga xamante ne moom mooy guddi leeru xadr boobu noonu ak li nga xam ne mooy lendemain bi ala kulli xaal léegi nag guddi gi nan lañ koy jaamoo loolu mooy li am solo maanaam xam guddi géeg xam ko te fekk xamoo ne nii lañ koy jaamoo nii lañ ciy def daanaka du am benn njëriñ ginnaaw nag yàlla xamal nañu li nga xamante ne moom mooy guddi gi li ci gën a am solo mooy ñu xam ne bu ñu fekkee guddi gi nan lañ ci war a taxawee ci ay jaamu xeetu xeetu jaamu yàlla te buñ nee jaamu yàlla yaatu na mooy ay julli ay zikr ay ñaan te loolu yëpp ay xadis ñëw na leeral ci bu mu leer nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu tolliwaan ci li nga xamante ne ni mooy fukki guddi yi nga xamante ne fa la ñu dëxëñ li nga xam ne mooy guddi leerul xadr ndax yaakaar naa dañuy jël rek wax bi gën a matale te ñu bàyyi yi nekk ci biir ndax mu gën a yaatu moo gën ñu tënk ko bu ñu gënee jàpp 27 la am na xadis bu gën a yaatu ñu xool leen ko ci guddi yu tool yi am na tam xadis bi gën a yaatu bu ne xool leen ko ci fukki fan yi kon kon boobu mooy bi gën a wóor mooy seet leen ko ci fukki fan yi mooy bi gën a wóor ndax fukki fan yi des fois mën nga jàppee ne guddi bi toll te fekk du toll ndax ci weer bi nu muy feeñee léeg-léeg ñun dinañ jàpp ne weer bi feeñ na ci anam boo xam ne ñii dañuy jàpp bii mooy euh, guddi bu tool ñii jàpp mooy guddi boo xam ne guddi bu toolul la te yërmande bi yaasu na ci biir fukki fan yi kon ki nga xam ne def na ko ci biir fukki fan yi bu tombee guddi bu tool ak bu tombee guddi bu toolul yëpp moom day nekk si assurance su mu ngi seet li nga xam ne mooy laylatul xadar bu ko dundalee guddi gi yëpp day am assurance que ne jàpp na guddi laylatul xadar donte si ñu ci wax ni yëpp seetlu ko bàyyi ko xel daf koy leer que ne moom. guddi laylatul xadri moom dundal na ko parce que dundal na guddi yëpp kon boobu mooy assurance bi gën a wóor ñu koy dénk suñu bopp dinañ ko dénk mu ngi tàmbali mardi nag mardi mu ngi tàmbali mardi guddi mardi si guddi nga xam ne ëllëg si mercredi lay nekk guddi mardi boobu guddi mercredi boobu ci lay tàmbali mooy mardi ci guddi mardi ci guddi moom la ñuy wax guddi mercredi ci lay tàmbali jëm ba vingt neuf vingt neuf nag bu jotee ñu séntu gis weer bi mat na mat na bu fekkee gisuñu weer bi dañuy matal fanweer guddi fanweer boobu noonu dañ koy naafila mu nekk guddi fukkeel mu nekk guddi fukkeel bu ja ñëwaan nag ni yonent bi daan def sallallahu alayhi wa sallam moo ne da daan takk ndiggam gën a yokk farlu donte nag daan na farlu ci guddi yëpp mais yii moom daf si daan gën a yokk farlu yee njabootam luñ doon def mooy dañ doon jaamu yàlla dañ doon julli alxuraan moom moo ñu wax guddi gi nan lañ ci war a def tey boo xoolee suratul alaq iqra bismi rabbika allazi xalaq mooy saar bi njëkk wàcc te boo xoolee dafa jeex rek yàlla attaque inna anzalnaahu fi laylatul qadr fi laylatil qadr fi ngay naan fi ngay naan ci aaya bi nu muy dem te kallaa laa tutixu wasjud waxtarib kallaa laa tutixu kallaa laa tutixu wasjud waxtarib foofu lay saar bi di jeexee surtout na alaq fi nga koy jeexalee rek da ngay dugg ci inna anzalnaahu fi laylatil qadr mais maanaam yàlla bi mu wàccee iqra wax ci wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ba bi muy ñëw naan ko ara ayta in kazaba wa tawalla alam yaalam bi anna allaha yara ñi nga xamante ne ñoom ñoo wane ginnaaw weddi ñoom lay yàlla di wax ci jeexital bi ne ko kallaa laa tutixu bu leen topp ñoom lan ngay def mu ne ko wasjud waqtarib su jootal nga jege ma daa di ñëw bismillahi rahmaani rahim inna anzalnaahu fi laylatil qadr kon mun nga déggee fii ne da ngay julli li nga xamante ne moom mooy ay julli da ngay sujjóot ngir nga jege sa borom ci guddi bi nga xam ne mooy guddi laylatul qadr waaye tam boo demee ci biir alquran aussi tamit da ngay gis ay saar yu lay yàlla di wax lu mel ni comme suratul muzammil qumil layla illa qalila foofu iqaam lay wax nga dem ci yeneen saar ay wa min al-layli fatahajjaj bihi naafilatan laka xam nga am na ay saa saar yu bëri yoo xamante ne dalay wan ne guddi gi li ci gën a am solo moom mooy julli mooy julli te boo xoolee itam julli dafa nekk jaamu yàlla boo xam ne dafa matale dafa nekk jaamu yàlla bi nga xam ne jàng alxuraan mu ngi ci biir sàbbaal mu ngi ci biir sant yàlla mu ngi ci biir istixfaar mu ngi ci biir lépp dafa daje ci li nga xam ne mooy ci biir julli su ko defee mu nekk ay julli yoo xam ne ki dafa koy def ci biir guddi googu boo jullee ba sonn mun nga noppalu jamono boobu tamit noppalu boobu bu ci amee koo xam ne am na xam-xam mun na jàllale xam-xam ndax jotaay xam-xam tam jotaay jaamu yàlla la te mooy jotaay bi gën sax mawqiful ilmi xayrun min mawqifil ibada jotaay bi ngay toog nga xam ne xam-xam nga fay jëlee jotaay boobu moom moo gën sax jotaay jaamu yàlla ndax boo boo boo toogul si jotaay xam-xam doo am xam-xam boo mën a jaamoo kon loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li ñuy wax ci guddi gi lan ngay ñaan nag ci guddi gi sax yonent bi daf ñu jàngal suñu yaay Aïcha moo ko laaj moo ko def bu ñu nekkee ci guddi laylatul xadri di ko seet nekk ci guddi yi lan la ñu war a ñaan yonent bi jàngal ko ban ñaan la ñuy ñaan mooy allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna yàlla muy fomp bàkkaar yi bëgg fomp bàkkaar ñu ngi koy ñaan mu fompal ni suñu bàkkaar kon loolu dafa nekk mbir moo xam ne euh, doo ci yem bu la neexee parce que soxla yu bëri na mais ñaan bi la yonent bi jàngale mun nga nag ñaan sa yeneen i i- aajo ñaan sa yeneen yitte ñaan sa yeneen soxla waaye ñaan bi moom la yonent bi saa salaam jàngale li istixfaar sax daanaka mooy comprimé feebar yëpp tey nit ki bu bëggee wërsëg na day def istixfaar bu bëggee doom amul doom muy bëgg doom na def istixfaar yëpp alxuraan moom moo ci ñëw wax istixfaar day maye doom istixfaar day indi wërsëg istixfaar naa nga bu sa bunt bu tëju da koy ubbi yooyu yëpp istixfaar da koy def kon ñaan bi yonent bi jàngale loolu nga bëgg yëpp mu ngi ci biir donte nag bu la neexee nga détaillé li nga xam ne mooy say soxla ci guddi laylatul xadr waaye li gën a am solo mooy guddi gi na la fekk yaa ngi jaamu yàlla di ko ànd ak ay malaaka yoo xam ne wàcc nañu di dogal say mbir yàlla ñu yàlla tombale li nga xam ne mooy guddi laylatul xadr yàlla may ñu kàttan bu ñu ko wooree li ñu ko ci jaamu mu néew mu bëri yàlla ñu ko yàlla nangul dara gënul màgg yàlla may la nga fekkee weeru koor rawatina nga fekkee guddi bi ñu dëxañ ci biir weeru koor ngëneel li ci nekk mënuñu ko natt suñu dund bu gàtt bi ñun xeet yonent yàlla Muhammad nga xam ne suñu dund lu mu lu mu gudd gudd gudd du romb cent ans xeet yonent yàlla Muhammad lu ëpp ci xeet bi soixante ans la ñuy dund duñ ko romb comme nañ ko yonent bi xamale dina am nag ñu yegg ba cent ans ba teg sa xëy na cent ans yi waaye boo ko bëggee comparé ak dund ñu ñu jiitu ku mel ne ay yonent yàlla Nuux nga xam ne moom waxuñu dundam sax mais woote gi mu woote ci yoonu yàlla rek neuf cent cinquante ans la ñoom bu buñ leen doon wax xeetu yonent yàlla Muhammad durant durée bi ñuy dund dañ doon jàppee loolu lu gàtt loo xam ne ba ne ñoom de bu doon dañ ko fekkee benn sujjóot lañ koy def ndax dañ doon gudd fan ñoom waaye nag yàlla dafa defal xeetu yonent yàlla Muhammad lu mu defalul benn xeet benn defal nañu ramadaan weeru koor bi mu defal defalu ko benn xeet beneen bi mu dëggal xë dëxal ñu ci biir ramadaan laylatul xadr ak yeneen i promotion yoo xam ne yàlla mu ngi ñu koy defaral imagine toi quatre-vingt-trois ans nga mën koo am ci benn guddi sa giiru dund nga di ko dàq boo dundee vingt ans nga dàq ko jàppal vingt jàppal vingt fois quatre vingt trois boo boo ko dàqee quarante ans jàppal quarante fois quatre vingt quatre vingt trois ans ak quatre mois bu yàggee ngay jàppalee du xadri di nga am tuyaaba yoo xamante ne gudd fan boo xamante ne ci ay tuyaaba yoo xam ne sa dundoo ko yoo xam ne xeet yonte yàlla nu sax amuñu ko woon ñoom ñu gënoon a gudd fan kon jullit bi fii lay fii lay jullit bi di xoolee mbir yi di ko natt ngir mu gën a mën a sawar gën a takk ndiggam li ñuy mujjee wax nag mooy nañu góorgóorlu ba gudd yi nañ ko dundalee ni ko yonent bi doon dundalee nañu moytu yenn divertissement yi dañu koy xaj surtout télévision yi surtout internet bi surtout ñu moytu tamit ñi nga xam ne dañ lay wax ci diine te li ñu lay wax ci diine duñ ko indil lay di la wax ay wax yoo xamante ne wax bi bu ñëwee boo ko comparé ak li yonent bi wax du ànd lii da la yonent bi jàngale ci leertu qadar kon nañ ko def ñu mucc nañ ko def njort ne yàlla dinañu nangul waaye bés bu ñu defee lu wute ak li yonent bi deful yàlla daf ñu koy delloo kon nañu góorgóorlu ci taxawal guddi yi di ko dundal te di ko dundalee ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan dundee ndax dina bi leeroon na démb ñu di ko jottali ba mu ñëw ci ñun kon loolu leeroon rafet bu yegsee si ñun nañ ko leeral nañ ko rafet aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum li lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh